c'est bon alors maître présentez-vous. maître Babacar Niang avocat au barreau de Paris. ok ah, euh, conseil de Ousmane Sonko. Ah, d'accord. donc si vous pouvez faire passe au Mec, on vous demande d'avancer un peu si si bi ça c'est ci dara bu ñu ci bi plaidé de am nañ ci yaakaar parce que droit bu dee droit rek moo tax ñu wax droit bi mi ngi côté Ousmane Sonko bu dee leneen nag loolu xamuñu si dara bu dee droit rek moo tax ñuy wax. la décision qui a été prise mooy décision bi nga xam ne moom le juge de Ziguinchor jëloon moom le juge bi war a on attendait aujourd'hui une décision mu li ñu doon xaar juge bi bu ñu paree plaidoirie yi mu joxe décision waaye juge bi nee na da koy mettre en délibéré ba le 14 à 9 heures ci lay rendre décision donc loolu nañuy xaar ni loolu nañ jëlee si audience bi waaye lépp li nga xam ne mooy argument de droit li nga xam ci la ci luñ ci luñ mën a sukkandiku. Mhm. lépp tout est en faveur de Ousmane Sonko. loolu c'est une réalité mais on attend la décision on est confiant on espère que le droit sera dit et ce ne serait que justice. Mhm. mais maître est-ce que mën nga revenir un peu ci li jot xew ci biir tribunal parce que bi ñu xëy déggoon nañu amoon na quelques euh, altercations yoo amoon diggante les avocats de Sonko ak ki xam moom mooy juge bi euh, déjà est-ce que vous pouvez revenir un peu ci li jot a xew ci tribunal bi. waaw euh, juge dans le cadre d'une plaidoirie loolu mooy lan mooy de manière générale balaa audience di commencer il faut ñu organiser temps avocat yi il faut que ñu wax ñaata temps nañu wax parce que pour avocat Ousmane Sonko yi tamit dañoo war a ñëw pour défendre seen client ci anam yu mu gën a euh, kii nu mu anam yu gën a leer donc c'est pour cela que ni on a plus de temps pour pouvoir plaider en profondeur le dossier et c'est ce qu'on a fait voilà waaw loolu bett nañ trop te boo gisee ni affaire bi mujjee yéex a commencé audience bi mujjee yéex a amoon na ay avocats ñoo xam ni dañoo ñëw dem directement salle parce que convocation bi salle la woon. mais dañoo ñëw ba fii ñu ne ñu non finalement convocation bi en fait dañ koy on va y revenir et que salle 7 foofu lay bi mujj déroulé on aurait aimé bi déroulé à audience euh, salle 4 moo ëpp salle 7 et que de manière générale aussi procès yu mag yi salle 4 lay déroulé wu te loolu nag dañ koy regretté bu baax mais en même temps l' essentiel est que ni jox nañu temps pour ñu plaider et on a plaidé le dossier comme il le fallait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre peut-être euh, euh, euh ne juge bi ak lu ñu mën a xaar ci yéen avocats ak yéen ñi nga xamante ne ànd ak euh, Ousmane Ousmane Sonko. waaw en fait loolu bien entendu décision bi bu génnee. et on espère que la décision sera en faveur du président Ousmane Sonko. bu boobaa bien entendu état de Sénégal lu mu lu mu def dinañ ko si topp. et si c'est le contraire. si c'est le contraire dinañ dem rendre compte à notre client. Mhm. puisque c'est le client qui décide. Mhm. nous ne sommes et assistant client bi lu mu décidé dinañ ko def ci nu gën a euh, rafete te lenn am na te ko on est prêt à en découdre mooy maanaam xeex bi jaxagul euh, ñu ngi espérer am si ndab mais ak nu mu demee dinañ continuer xeex bi ba Ousmane Sonko nekk candidat incha allah au présidentiel de 2024. est-ce que loo xamante ni euh, xaw a am vraiment liñ fi wax lépp loo xam ne lu ñu gisoon démb la loo xam ne juge juge Sabassi daf leen daf leen daf leen mayu leen woon si dëgg lépp liñ fi waxoon mooy li nga xam ne moom la juge Sabassi euh, d'accord ne loolu du noonu donc en vérité ils ont rien ramené de nouveau dañoo ñëw di répéter di répéter yoo xam ne de vraiment amul ay arguments yoo xam ne àndul ak sax droit parce que de toute façon ñaari point tamit nañ doon débattre benn bi mooy est-ce que euh, Ousmane Sonko président Ousmane Sonko jotoon na notification de la décision de radiation loolu mooy premier point bi et loolu sénégalais yëpp sont témoins que ne Ousmane Sonko musul jot décision de radiation loolu tamit décision de radiation sax buy am loolu c'est discutable parce que décision na nga koy gis mu nekk un acte un instrumentum acte boobu la kenn gisul compte tenu de l'acte nañ rapporté le contenu de l'acte moom nañu indi nañ loolu mooy décision bi moom nañu signifié te kenn mësu ko signifié donc loolu euh, ñun nee nañ de toute façon kenn mësu ko signifié moo tax son recours était recevable voilà loolu c'est clair loolu le juge euh, Sabassi avait décidé en notre faveur et on espère que le juge de Dakar va également répéter la même chose boo xoolee tamit euh, Cour suprême dafa ne le juge Sabassi n'avait pas tiré les conclusions de ses propres constatations maanaam juge Sabassi na signification, la signification était irrégulière. La sanction d'une signification irrégulière, c'est quoi Sanction signification irrégulière, moi, nullité de la signation. Mais le juge avait considéré que la signification était sans effet. waa Donc, l'autre affaire est loolu moo tax affaire yi tamit on est confiant ci côté boobu. léegi décision bi war a. beneen beneen beneen point bi ñu doon débattre mooy sur le fond ndax contumace mi ngi am ba léegi waaye affaire yi caaxaan la parce que boo xoolee même chronologie. fee boo xoolee bu baax euh, Ousmane Sonko ni ñu ko jàppale 28 juillet euh, décision bi naan da koy radier mu ngi ni ko jël vingt 22 te entre temps jàpp nañ ko te bu ñu ko jàppee l' article 316 nee na toutes les formalités et tout ce qui a été décidé et qui a été de plein droit maanaam lépp li nga xam ni defoon nañ ko day day daanu day day dañ koy annuler donc en en gros sur le fond sur les deux points qui ont été débattus mooy euh, recevabilité bi. ak euh, sur le bien fondé yooyu yëpp on est confiant et on espère que le juge va nous suivre. dernière euh, décision bi nga xamante ne le la ko juge bi war a joxe. waaw est-ce que ça demande votre présence oui ou non wala communiqué lay doon nii rek. décision bi juge bi day ñëw rendre ko fii day ñëw lire ko te bu boobaa ñëpp dinañ ñëw déglu lu muy wax parce que tamit c'est un instant solennel c'est un instant important qui implique tous les Sénégalais parce que Sénégalais Ousmane Sonko bokk ci élection yi mu nekk des élections inclusives nit yi am liberté de choix de leur candidat donc loolu tamit c'est important que moom mu ñëw assumer sa décision dire ko bu boobaa ñun tamit dinañ ñëw taxaw pour déglu lu muy wax ndax lu muy wax li euh, ça intéresse tout le peuple sénégalais aussi. Alors, si le résumé en Très rapidement euh, s'est très bien déroulée le juge a décidé de mettre la décision en délibéré donc la décision interviendra le 14 à 9 heures. Euh, nous attendons bien entendu une décision de confirmation, ou plutôt une décision qui consistera à redire ce que le premier juge a déjà dit, c'est-à-dire que le président Ousmane Sonko n'est pas forclos dans son recours, il était dans les délais pour, pour pouvoir euh, attaquer la décision de radiation. Nous espérons également que le juge va également décider que la demande d'annulation de la décision de radiation sera une décision annulée, puisque en vérité, la contumace n'a jamais eu lieu. La contumace a eu lieu, elle a été anéantie de plein droit le jour où Ousmane Sonko a été appréhendé, arrêté. Euh, maintenant qu'on nous dise, oui, il y a une arrestation pour un point, qui est différent d'une arrestation d'un autre point, ce que des, ce ne sont que qui sont ridicules. Et cela n'est pas acceptable. Donc c'est pour ces raisons Nous restons confiants, nous pensons que le droit sera dit le 14 et que bien entendu, le peuple sénégalais, le peuple sénégalais aura le choix aux, euh, aux élections de, 24, euh, de 2024 de choisir librement entre le candidat du système et le candidat antisystème. Et c'est ce qui est important et ce qui est important à retenir que en fait voilà, nous attendons tous une décision favorable et on espère que la décision sera favorable. Mais, mais eh est-ce, donc, est-ce que euh, président vous pouvez revenir sur le déroulement euh, de, de l'audience depuis ce matin vous étiez là? Oui, l'audience d'abord à ce qui s'est passé à l'intérieur. L'audience s'est déroulée d'abord par une petite organisation sur le temps de parole des avocats. Et le juge a accordé quatre heures à chaque partie. Donc les avocats du président Ousmane Sonko ont plaidé en premier puisqu'ils sont en demande. Puis il y a une suspension et que par la suite, les avocats de l'État ont plaidé. Il faudrait relever que les avocats du président Ousmane Sonko ont plaidé en droit, ils ont argumenté les choses, ils ont expliqué aux juges l'enjeu de cette décision et que bien entendu, nous, gardons espoir que le droit sera dit. Et si le droit est dit, le président Ousmane Sonko va avoir une décision favorable. est euh, des, des, euh, des, des, explications par rapport au changement dû euh, à, la, à, la, salle Par rapport à la salle, c'est une question d'organisation. Apparemment mais nous regrettons le fait que la salle soit délocalisée sans que nous soyons informés, puisque nos confrères étaient déjà à la salle 4, mais ce n'est qu'un phénomène, par la suite qu'on nous a informé que l'audience la, devait avoir lieu à la salle euh, 7. Et nous regrettons tout cela. des éléments euh, de cette Ils n'ont ramené aucun élément nouveau. Ils ont, essayé d'étaler des éléments qui ont été rejetés par le juge de Zingassor. Ils ont essayé de se débattre dans des arguments qui n'ont rien à voir avec l'audience. Quelquefois même on se demandait mais où est-ce qu'ils ont appris leurs droits. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est de voir des avocats en vérité qui défendent une cause, on est d'accord, l'avocat défend une partie. Mais en même temps, on aurait aimé que le débat soit juridique. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, du côté d'en face, le débat n'a pas été vraiment un débat juridique et c'est ça que nous regrettons. Nous considérons que le juge va rendre sa décision en droit et en droit, le président Ousmane Sonko, on espère qu'il va gagner. Euh, concernant cette décision, pensez-vous que la, le juge va faire un communiqué ou euh, ça va demander à ce que vous revenez ici En vérité, nous considérons que l'instant doit être solennel et nous pensons que le juge, bien entendu, a donné rendez-vous le à 9h et que ce sera une audience publique. Le prononcé de la décision sera public le juge va venir et lire la décision et tout le monde sera édifié sur la décision qui, euh, qui, qui sera retenue. D'accord. Voilà. en tant qu'avocat de, de, de Sonko après la décision du juge le 14 Si si du Sénégal est si l'État du Sénégal est débouté, bien entendu, nous allons nous réjouir. Et si l'État du Sénégal décide de se pourvoir en cassation, nous irons encore à la Cour de cassation. Baba Carnia.